bi ak télévision future Médias xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy tàmbali rek ak kii di Mouhamadou Fallou seen kon nag tey euh, jébbal nañu ko boromam ca Touba Mbacké délégation bu takku nag boole ay étudiants yu bàyyi ko ci daara yu kaw yi fépp ci Sénégal ngir nag gunge ko ci këram gu mujj googee lañ ca jàpp nag mooy néewam ca hôpital bu Njaareem lañu ko jëlee tey ci suba leeral yi dañ ci ànd ak Babacar Diouf Ndonga Ndiaye. kan wi bari woon fi lool bëri nag coow lool étudiant yi ci wetu waajuru ndongo li ak ki nga xamante ni mooy wasilaam gunge ko ci lépp luñ ko waroon a defal naaj bi nag tàng fi lool ci ndorteel koor gi ci diwaanu Njaare fii ci hôpital Heinrich Lucke midi tegal na ñeent fukki minute bi yore néew bi deq yi jëm Touba Mohamed Fadel Sène dañ ko war a denc bu ñaari waxtu jotee. fii nag kenn mënatuloona a boppam ñépp di yuuxu di daanu sax yasi recteur bu université Alioune Diop du Bambey moom rek moo fi nekkoon kilifa ci ñi jeeti njàng mu kawe mi muy woote dal donc mënuma woon bañ a teew fii représenté fi toute la communauté universitaire du Sénégal léegi nag suñu xel suñu xol dafa fees dañu am naqar euh, parce que étudiant moo fi bàyyeekoo ci condition yu doy waar waaye mënuñu woon lu dul ñëw teewee ko ànd ak moom ba ñu jëbal ko Cheikh Ahmadou Bamba fee ci Touba euh, bu loolu jàllee nag mënuñu lu dul ñun appeler à la l'apaisement euh, à la sérénité justice mi ngi def liggéeyam procureur bi wax na joxe na information yu am importance li communauté di xaar nag mooy li Sénégal yi di xaar yëpp c'est-à-dire ñu situer responsable. xasida njàngum alxuraan lii moo gunge ki nga xamante ni moo di néew ci cortège bi nga xam ne ay oto yu jóge kud ñoo ci ëppoon teg ci nag ay oto transport en ñu jébbal ko boromam tey ca Touba ñuy ñaan rek uh, yàlla uh, suufas Touba oyof ca kayam waaye tamit suñu borom xaare ko ci àjjana yi gën a kawe moomee di uh, Fallou Sène fële moom ca diwaanu Ndar ak université boobee di Gaston Berger étudiants yi nag ñoom dañoo daal di rek able ci boobee université ndax nee ñu seen xel dalul ak méttit wi nga xamante ni ñu ngi koy dund jamono jooju ñu ne nag ña ngay ñibbi ci seen mbokk ba jàmm dellusi ca université ba u Ousseynou Diop. étudiants yi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar daal di décréter grève illimitée ginnaaw ba ñu fàttee seen moroom mi di Fallou Sène tey ñun euh, étudiants wu Saint-Louis Euh, particulièrement coordination des étudiants de Saint-Louis dañoo pare taxaw tem ñu rencontrer benn autorité. lii nii dañoo décréter grève illimité. ndaw yi nag ginnaaw bu ñu déggee xibaar bile ñu ciy bari ci ñoom ñu ngay ñibbi El Hadji Kaba Gueye mu nga jëm ci Nioro du Rip nee na toog ci université bi xalaatu ko. dama xaw a tiit miinuma di gis aussi ñuy rey nit et que démb devant sama village ma wàcc gis ñu rey nit sama kanam. voilà aussi samay parents nelawuñu tamit xam nga depuis hier ñu may wax ñibbisil ñibbisil voilà donc ma ñibbi quoi. Jigom Ndour étudiant bu nekk ci master. moom nag mbuur la jëm. waaw dañu ne ñun ñibbisi parce que fii nii lu ñu lu gaa yi woon ci média yi nii wo kii wutu leen quoi dalatu seen xel il faut que ñoon ñu ñëw xam nga toog ñu gis seen doom ak yooyu noonu parce que bu ñu demee bay rey doomu seen doom yi ne fii nii mieux vaut xam nga ñu dem quoi waaw balaa affaire bi di continuer di dégénérer. ak jafe-jafe yi am ci université bi ba tax xale yi def grève illimité ñoom étudiants yi ñu ngay am njàqare ci lu jëm ci wàllu li ci at bi. parce que. yàgg na fi nag parce que sama première année maa ngi ko def presque deux ans année bu gudd mais étant étudiant tamit ñu muñ rek ba on a eu nos 60 crédits ensuite commencé nañ année bi si yaakaaroon nañ si jàmm ak salaam mais avec ce qui s'est arrivé moom vraiment on na a peur quoi. ci université Gaston Berger bu Ndar nag ñu ci bare naqar la ñu àndal moom Roqaye Wade Diop étudiante la ci wàllu communication moom li xew ba tax étudiant yépp di ñibbi doon na lu des ci xolam. ñibbiwuñu parce que dañuy ndaw ñibbiwuñu par parce que li ñu dal suñu camarade méttiwuñu dañuy ñibbi parce que pour calmer la situation parce que tey jii képp kuy parent ak foo mën di nekk sa xol am nga looy ressentir parce que lii dal tey jii mu Fallou Sène mënoon na ma dal ko mënoon na dal benn n'importe quel étudiant d'entre projet Ndar xale yu bare ñu ngay jël seen i saak di dellu seen i kër ñu ni la ñuy xaar mooy lépp a dal ngir ñu mën a delsi ci jamono jooje moom euh, waa SUDES euh, di euh, syndicat boobu ëmb jàngalekat yi ñoom nag nee nañ lu soxal Fatou Fallou Sène du kenn ku dul nguurug Sénégal ba tax na nag ña ngay sàkku daal ab commission enquête ñu ne sax commission boobu nañu leen ca boole ndax kat dañuy bañ la xewoon ca Balla Gaye ak Bassirou Faye xew ci li nga xamante ni moom mooy ko fàllu seen Fatou Bintou Konté faatu étudiant bi nga xam ne moo di Mouhamadou Fallou Sène jamono ji ku nekk ngi ciy wax bi yoon sax nag waa SUDES mu di syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal section ba ne université ñoom nag ñoo jukk addu ci te nag di wax ne lu ji njaat jamono ji nguur gi rek la. tey nguur gi la lu tax ñu wax ne responsabilité nguur gi la parce que am na benn adage buy wax ne que les mêmes causes produisent les mêmes effets ah, su dee les même causes produisent les mêmes ngeen am ay étudiants boursiers étudiants yi war a jot. Euh, seen bourse ci fin du mois jotuñu bourse bi ci seen ci fin du mois ñu dem ba ci xaaju mois bi le quinze jotaguñu ko amu amatuñu dara ñu manifester wala ñu dogal ne que dañuy lekk sans fay ci restaurant universitaire yi manifestation am euh, affrontement am ak euh, ak force de l'ordre yi étudiant dee ci responsabilité gouvernement bi la parce que gouvernement bi su fayoon bourse yi duñ doon exister ci situation boobu. ñoom professeur yooyu ñu exiger ñu taxawal benn commission d' enquête boo xam ne ñoom dañ ciy bokk ngir yëf fi gën a mën a leer ndax li xewoon ca Balla Gaye wala ca Bassirou fay dootu fi amaat. loolu moom bii yoon euh, pour que euh, dee Fallou Sène bi bañ a am même sort que dee Bassirou fay bi en 2014 dañu exiger am commission d' enquête indépendante. commission d' enquête indépendante boobu foog des bokk ci lu tax ñu wax ne que foog SUDES bokk ci parce que wóolutuñu gouvernement bi wóolutuñu nguur gi donc pour assurer indépendance commission bi ñu bokk ci daal garantie la. noonu ji nag waa des ñoom dañoo banque seeni loxo 48 heures de grève la ñu def te ak ajjuma ji sax dañ ciy dolliwaat yeneen 24 heures. waaw dañu grève les 16 et 17 grève de 48 heures mooy démb mercredi ak tey euh, jeudi. mais grève boobu ñu ngi koy reconduire suba 24 heures de grève. Omar Dia ak ay naataangoom ñoom dañoo fas yéene xar seen tànku tubéy ngir jëf yi nga xam ne moom moo am ci université yi mu jeex tàkk te nag ñu leeral ko ba mu leer. leeral googee sax jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu yoon fii ci euh, Sénégal di professeur Ismaïla Madior fal euh, àdduna ci nee na nag yoon dana dana ca dem ba jeex enquête bi nga xamante ne sax ubbi nañu ko ci faatu googit euh, dibeer ji lañu ko fas yéene ndar képp ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba Macky Sall daf ko waxoon bi loolu xewee mu ne dinañu def enquête enquête indépendante enquête diligente boo xamante ni dinañu situer responsabilité yi bi mu ko waxee tamit gis ngeen ne procureur de la république bu Saint-Louis euh, commencé na enquête bi def na sax démb conférence de presse euh, joxe na éléments yi nga xamante ni yëpp am nañ ko te liñ ciy jàpp li ñu mën jàpp mooy. enquête bi incha allah euh, dinañ ko boucler ci semaine bi au plus tard dimanche te euh, su boobaa nag dinañu génne résultat yi te ñi ñu war a tamit euh, li li ñu war a appliquer loi bi dinañ ko appliquer incha allah. Eh, ci seetlu nag eh, coowal étudiant yëpp rek eh, fay bourse yi la ak na mu yeexee kii nag dénkoon nañu ko lépp lu soxal wàllu bourse yi ci Sénégal muy Ousseynou Goumbala moom nag nee na nguurug Sénégal war na daal jël matuwaay xool nag ni ñuy fayee bourse yi mu jël nag mbir bourse yi daal def ko muy maanaam question boo xamante ne nii dañu ko war a jiital ci lépp ñu teewlu ko Mambiram Diouf sax laay wax lañu ci àndal wala ñu teewlu ko moom moomee di Ousseynou Goumbala ci micro Mambiram Diouf bu direction des bourses defaree état yi te at weer wu de balaa le quinze état yi pare na ñu yóbbu ko ci banque yi banques yi fay bu ñu fayee benn weer ñaari weer ñetti weer balaa ñeenteelu weer bi ñu defar euh, ministère des finance defar chèque fay banques yi loolu moo ne ci convention bi bu fekkente ne banques yi ñu ngi def li ñu war a def te bu ñu fayee ministère remboursé leen warul am problème ndax loolu mi ngi am beneen bi ci des ministère des finances ak ministère de l'enseignement supérieur dañu war di daje di rek di di waxtaan di def ay réunion ci problème yi bourse yi lii du lu bees chaque dañ ko yàgg audité bu fekkente ne université bu ne euh, nekk na académie ñu ñu agent comptable ba nekk foofu ca université ba ñu jël bourse yi jox ko ko mu koy fay comme ni muy fayee euh, professeurs yi comme ni muy fayee dépenses yi université yëpp di def bu boobaa du du am du am benn problème. ñu dellu ci université Gaston Berger bu euh, Saint-Louis ak euh, cow la ak fa mu mujjee euh, faatuk Fallou seen ñu ne nag université boobee nekk na daara joo xamante ne dañoo mës a jàpp ni daara ju xarañ la ndax loolu tax na nag télévision Futurs Médias tamit dem seeti ñaar ñoo xamante ne nii nekkoon nañu ci université ba ku ci mel ni Cheikh Diop taskatu xabaar ci RTS Cheikh Tidiane Dieye di liggéey ca inda ñu ne nag ci atum 1990 limug étudiants yi juróom benn téeméer la woon tey ñaari junni la ak lu top ñoom ñoo ñu delsi nañu eh, ci UGB ci atum 1990 Aminata Mbarisso bokk nañ ci ndongo yi jaar université Gaston Berger de Saint-Louis Cheikh Diop doon journaliste radio Sénégal di ñu fàttali at yi mu nekkoon ca université boobule. bi ñu fay ñëw 600 étudiants woon juróom benni téeméer. xam nga juróom-benni téeméer ci université mën nañu wax sax ne école la soo ko waxee nit sax parfois daf koy reetaanloo ñun cinquante étudiants kott la ñu wax. diggante mag Cheikh Diop ñaari at moo leen séparé waaye teewul at yooyu lee niñ fa nekkee woon macha allah. ci condition yi ñu doon dundee nag macha allah conditions yu baax la woon euh, ndaxte barewuñu woon lu yomboon gérer la restauration bi alhamdulilah aussi euh, ñun dañu waa Dakar dañu doon wax sax ni ñun nguur gi daf ñu beraloon loxo. Euh, li ñu doon lim ay 600 étudiants léegi ëpp nañu 14000 loolee waral étudiants yi di dund beneen dund. ñun suñu jamono. musuñu woon xalaat ne étudiant dina génn ci université dem di luyee ji nekk ay saanaar wala ngaleel wala biir ndar. ñun bi ñu fay dem suñu promotion matuñu sax 60 wala 70 ci sociologie 92 ñañu fa fekk itam barewuñu woon donc loolu taxoon na yaakaar naa njàng mi gënoon yomb. ay unité de formation et de recherche yu bees daal di ubbeeku université Gaston Berger de Saint-Louis doon léegi université gu mag. ndax boo defee yokk tuuti étudiants yi war nga def aussi sociale bi tey mooy problème mu université saint ndongo yi bari nañu Euh, condition de vie yi xëy na demeewul noonu parce que chambre yi tey boo fa demee muy jigéen ñi di góor ñi day am surpopulation. événement yi nga xam ni daal di nay am foofule ba ab étudiant ñàkk ci ab bakkanam ñaar ñi nga xam ni foofee la ñu jaar di ko naqarlu ñu jàpp ni ay waxtaan yu dëggu dafa war a am diggante administration bi ak xale yi fay jàng ngir université Gaston Berger de saint ak jëlaat image biñ ko xamee woon mooy l'excellence. moom nga xam ne Tambare Sow ñu jubbanti tuuti rek kon fukki junni ak ñeent mooy limuk étudiants yi mbaalu ko ëpp ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ñu wax nag ci wàllug ajuk màkk gi ren ji nag ñu ngi koy waajal bu baax jëwriñ ji nga xamante ni moom la dénk wàllu jëflante ak biti réew ma ngay dalal xelu ujaaj uh, yi ak ñi nga xamante ne nag uh, ñoom ñooy voyagiste privé yi ñu ne nag matuwaay yu ca jël daal yu ca war dinañ ko jël rek ngir ujaaj yi nekk ci anam yu mucc waaye tamit voyagiste privé yi mën a def seen liggéey liggéey na mu waree mu ngi doon amal nag akub nemmeeku euh, fële ca délégation générale au pèlerinage dinañ ci euh, dellusiwaat ñu wax nag ci wàllu tàggat yaram ak listuk sunu gaynde yi nga xamante ne nii nag fësal nañu ko euh, ni ki tey jii muy ñaar fukk ak ñett gaynde yi nga xamante ni ñoo war a teewal Sénégal ca Russie ca coupe du monde bi si Cissé sànq rek la doon janok taskatu xabaar ngir fësal yooyu gaynde dañ ci ànd ak Cheikh Sadibou Diarra Hadia Talla ci leeral ko yaakaaree woon noonu la tëddee list bi amul dara lu ci yees ci ñi war a jongante ji ci Russie 2018 sélectionneur bi di Aliou Cissé dafa di wéyal rek ñu mu doon faral di tàkk euh, bu weesoo dellu si défenseur yi di Karambo ak Saliou Ciss complémentarité la parce que tey euh, bu dee Alfred Ndiaye mën na jouer ci ginnaaw parce que joué na déjà ci ginnaaw Cheikhou Kouyaté mën naa ko reculer bu ñu amee problème Salif Sané mën na jouer ci ginnaaw mën na jouer ci digg bi tamit donc complémentarité boobu mën na euh, polyvalence jàppale vraiment ci ci lu bëri. attaquant yi nag ça dépend des boo xam ne bu dee ñaari attaquant lañu bëgg jouer je crois que liste bi mën na ko def bu dee benn attaquant lañu bëgg a jouer tamit je crois que liste bi mën na ko def donc liste bi am na benn ouverture boo xam ne ci yu bëri mën nañ ci benn défenseur juróomi milieu de terrain ak juróom ñetti attaquant ñoo nekk ci liste bi ñu tënk si ñaar fukk ak ñetti footballkat mu nekk tànneef rek bu sukkandiku ci dal bi Aliou Cissé bëgg ci biir groupe bi. 23 joueurs yi amul benn risque parce que am nañu ñeenti joueurs yoo xam ne ñoo nekk réserviste euh, problème bu amee ci 23 joueurs yi mën nañu puiser ci ñeenti joueurs yooyu. pour mën a vraiment renforcer équipe bi donc lu tax 23 parce que tout simplement je pense que c' est important que ñu garder euh, confiance su xale yi pour que bu nekkee ci regroupement bi bu ñu poser question ni que est ce que ñoom ñoo war a des est ce que ñoom ñoo war dem loolu situation yoo xam ne la joueur mënu ko supporter. tàggat bi njëkk ngir waajal ci altine bi lay tàmbali ci Saly ndax ku nekk rek mën cee gis boppam ñoom kat yi. préparation bi le vingt le vingt mai la ñuy la le 24 normalement incha allah dañu war a dem jëli drapeau bi ci président de la république après bu ñu jëlee drapeau bi rek le 26 nañu war a jógee fii pour dem euh, pour dem France. bëgg nañu équipe bi en tout cas représenter couleur nationale bi comme nuñ ko nuñ ko waree donc loolu mooy suñu objectif maanaam tey dem ci coupe bi euh, faire plaisir suñu suñu dëkk suñu continent. Euh, di ñaan yàlla vraiment que sénégalais yi yëpp sandi si ñaan bu baax euh, parce que soxla nañ seen ñaan bu baax a baax. Adama Mbengue Fallou Diagne Henri Saivet ak Famara jeeju ñi bokk ci réserviste yi ci sélection nationale am nañu yaakaar rek ñu dem fu sori ci compétition bi fële ci Russie. daanaka liste CAN 2017 bi la delloo si Malick Cissé mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diawo ngir xibaar yi ci nasaraan ñu leen di ñaanal ndogub jàmm.